xul huwallaahu ahad ñaar fukki yoon mel ni ku moomoon àdduna bi yépp ak li ci biiram mu dundale ko ci yoonu yàlla mel na ni it ku jàng tawraat injiil zabuur ak furxaan te buy génn àdduna dana mel ni bis bu mu juddoo woon ci ñàkki bàkkaar soppe ku ci bëgg yeneen ni leeral dangay dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke page 149 خير ضيف أتى بالبشر والمداد